était autorisée euh, le bilan le bilan la marche était autorisée. ban ban mobilisation la marche c'était autorisé le le le. non non le bilan, non, non. le bilan bi nga xam ne kenn du ko contesté. Pape Pape c'est, le bilan bul dugg xam nga waa déglul Pape <clears throat> li ñu mënta contesté te mu doon ay faits c'est les kilomètres de route et d'autoroute dans ce pays. c'est le pont de Rosso c'est le pont de Foundiougne c'est le pont de Farafenni. loolu ñu ngi koy gis. waaw léegi ci teg loolu ñu ngi ci teg bët tegul bët. loolu ñu ngi ci teg bët loolu moom loolu ñu ngi koy gis. ñu koy gis oui wax la li ñu gisul. li ñu gisul. non Pape mooy les cent dafa nag rek li ñu gisul mooy les cent et quelques yi ñu arrêté ni ñu tudd. loolu laa bëgg a xam seen i tur ak li tax ñu arrêté le xam nga Pape la manipulation la ñuy dundee. manipuler sénégalais yi di wax loo xam ne teguñ ko ci benn dëgg Sénégal su nekkoon réew mi ñuy fitnaal doomu aadama yi kon duñ ko xam ñu ngi ñuy xool ci àddina ndax di rafetlu suñu démocratie pap di rafetlu toi le fait que nga am un espace comme ça mun a inviter quelqu'un du pouvoir de l'opposition de n'importe quel corps am la liberté de ton de dire ce que tu veux ñu bëgg a salfañe suñu lekk boobu naan ñu les libertés individuelles fii la menace sur les libertés vient de ceux qui agressent les journalistes ñi agressé journaliste ñan ñoo koy salfañe ñi agressé seen journaliste bi obélisque seen journaliste bi ñu agressé obélisque hum te mu demoon pour def reportage ñu sànni ko xeer molesté ko yàq matériel am dàq ko ne ko toi tu es avec le pouvoir waaw ñooñu ñooy menacer la démocratie mais pas nous te loolu nag da ngeen war a am courage wax leen ko ñiy menacer juge yi naan leen xam nañ seen kër xam nañ seen famille di menacer sunu sëriñ si ñooñu ñooy menacer nos liberté avant d'arriver au pouvoir et eh, il est du devoir Pape de tout patriote qui aime ce pays de prendre ses responsabilités parce que ñii dañ leen a war a wax dëgg li mu bind fii ci lettre bi nga di ma ko wax teguwul ci dara continuer à bâtir ce pays à protéger les plus fragiles parmi nous à travers les politiques sociales et les politiques xam nga et loolu. waxoon nga doo xatraayu mais <laughs> yaa ngi bëgg a xatraayu. waaw mais c'est nga yaa a xatraayu te li ngay xatraayu dara waralu ko lu dul. <laughs> bëgg génn ci li ma lay po question yi ma lay posé. bëgg dugg uh-huh. ci leneen. Uh-huh. li ma lay wax te mu nekk ay fait. mu nekk loo xam ne ñëpp dañ ci teg bët. mu nekk lu